doomu aadama daal mu ngeen juróom ñetti bagaasam yoo xam ne su teelee xam fi mu leen di teg teel a xam ni mu leen di yore coonoom dina néew torop torop torop ci àddina ak alaxira donte sax laqad xalaqna al insaana fi kabadin saa yorut googu dafa am lu muy emploi ci baatu arab boo xam ne néew na lu mu dendal lu ko mën am na tur arfu jarri lañ koy wax mooy moo bu mu tàbbi ca kanamam dina ci jëfandiku jëfandiku boppam ba mujjug moobu ba maas ga cay maas ga cay dal du mën a dal lu ci suuf du moom rekk mën loolu am nay bokk yu takku miim ci la alaa ci la ilaa ci la fii ci la waaye moom nag dafa am xusuusiyet boo xam ne yooyu amuñu ko ba boo jàngee lu ñuy wax bayaan fekk ko ci moo daa gis lu mu liggéey lu ëpp doole la ñële liggéey moo tax suñ borom ne laqad xalaqna al insaana fii kabadin tanwiin ko nakkiraal ko tanwiin ko baat boo xamee ne dafa am liif ak laam doole ja dootul bañ mais bu ñu dàqee liif jaag laam nakkiraal ko dootul am poids ba dootul am limite ma ne nag dafa am lu moo liggéey am na hadis bu siiw wala boog muy mësal bu siiw bu ñuy wax ne allahu fii awni al abdi ma daama al abd ala awni aqihi fële faa yarul nga employé fii ay demante la nga la employé allahu fii awni al abdi wala bu la neexee nga ne fii awni abdihi dindi sa ñaar ak sa liif ak laam gële parce que dama wax ne allahu fii awni al abdi liif ak laam a ngoog ma ne mën ngaa dootoo liif gi ak laam gi yokk al sa xel ci mujj nga ne allahu fii awni abdihi maadaama al abdu ala awni aqihi li tax ñu fab ay ndemantine laam yanara employé ko ci côté jaam bi fab fayirut employé ko ci côté yàlla kookoo laa woon différence yi fayirut ak ay ndemanti la doonte ñoo bokk sax maas baat bi ci suuf ndax ne ne fi awni al abdi ne ala awni al abdi xam nga luy différence bi moo di papa faayirut gi day sax day sax faw ay ndementi la day jof ci di wëtti di leeg-leeg leeg-leeg allahu yàlla fi awni l abdi sax na dakk dakk ci di dimbale jaamam maadaama feek jaam ba ala awni mu ngi dimbale leeg-leeg leeg-leeg jaam leeg-leeg la mën a dimbale leeg-leeg day am jamono yu mu ko dul mën am jamono yu mu ko dul yëg am jamono yu mu ko dul sal am jamono yu mu ko dul fekk moom mi koy yëg toujours di ko mën toujours di ko tal toujours di ko fekk toujours mu jagoo faayirut fab ay ndimbanti la jox kee nga dégg ci ne sa ndimbal su tuut si su léeg-léeg si mën na laa jural ndimbalam lu réy lu sax dàkkal الله في عون العبد ما دام العبد على عون حقه am na ñuy wax sax am na sax ñuy wax muslim yi waaye déedéet ma ne nag su juróom-ñetti baraak yooyu soo teelee xam foo koy dij mën na laa jural coono bu néew torop ci àddina ak alaxira ma toj ci doonte sax nit dañ ko bind moo tax xoox coono it loola mën na laa musal ci coono yooyu jarul a xam ah man a jarul a xam loolu di la jural loolu jar naa xam dafa am ku ñuy wax yàlla dafa am fu ñu ko war a teg bu ko dara dul fekk du fa fekk dara ak ku ñuy wax nit ak ku tuddoon turam woowu ca jamonoom ku mu doon dafa am place boo xam ni foofu la war a yem waru koo yées waru koo jàll am ndey ak baay dañoo am fu ñu leen war a teg mooy seen place am sëriñ dafa am fu ñu ko war a teg fu mu war a paas am njaboot am fu ñu ko war a teg fu mu war a paas am kilifteefi gouvernement am fu ñu ko war a teg fu mu warul a paas am dëkkandoo am fu ñu leen war a teg fu ñu warul a paase ak nag luy mbindeef kenn ku ne nag am na ci yow yow yow yow yow mi janoog man kenn ku ne am na ci ñoo ñooñu kenn ku ne ci ñoom am na ci yow cër ma ne ragal moom nañ ko defal yàlla rek képp bu ci keneen bokk de boo ko ci boole rek juum يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتيكم كفلين من رحمة ويجعل لكم نورا تمزون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يلا دنكو رجل يونت بي دنكو يجم way jur dañ leen di wekk sëriñ dañ koy bëgg njaboot dañ koy sopp ci kilifteefu àddina dañ koy déggal say dëkkandoo da nga leen di rus lu yàlla bind nga ormal ko xam nga tabaraka wa taala moom ci waxinam ak definam dafa xejalul kenn nga dugg fenn ci jaam yi papa tafsir baal ma maam ibrahim ca suul su bàqara am na fi xitaab bu mawlaana tabaraka wa taala defanteeg moom xitaab ba am lu mu jural Ibrahima ba mu dellusee di daw loola tax mu am neneen lu mu waxe yàlla juyaat ko rombanteeg moom maa ngi jàng ay bi aw billahi min asheytaani rajim wa izabtali ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna maam ibrahima am na am na njaaraama de moom rek la yàlla wax ne ci alquran ibrahima day la ma ko waxoon def na ko wa ibrahima alladi wafa wa ibrahima alladi wafa mooy gor sa nga xam ne la ma ko defloo woon sottal na ko na mu rafete mu wax na ca bàqara pour firi ko te alquran yi firi morom ma ne waskur nettalil yow Mustapha biibel bi bu mu jeex mukk te nettali woo lii ma lay wax nettali ko sa gaa yi lan iseptula ba nga xamee ne sant naa ba nga xamee ne santeef na service ku ñu sant service ba ibrahima taqdimu mafoole anil faili nag soo xoolee foofu dafa niroog suul adab mais rujon u demir bee tax demir moo di moo di lu dellu ci ki nga doon wax boo gisee ñu jiital jëf ka ñu def door a teg ka ka def arab nanguwu ko booy wax dóor na ci dóor ngay wax door a wax ki mu dóor ki dóor moo tudda failu ki ñu dóor moo tudda maf'ul lenn rek lay may droit nga jëkk ki ñu def tardeel ki def fekk ki ñu def daf ko ëpp daraja bu fekkee ki ñu dafa ëpp daraja papaam la mbaa seefam la man ngaa tardeel ki def jëkke ki ñu def wala boog sa papier xam nga roof ko ci wala boog mu mel ni ni yàlla employé wi zëbtule ibrahima ibrahima la ñuy def moom la yàq yàlla jëkk tudd yàllaa ko def yàlla du mujjee tudd boppam wi zëbtule ibrahimu rabbuhu rabbuhu joojoo tax alsaxeer gi war a dellu si ci ibrahima te demir di jiitu borom moo tax ñu tardé rabbuhu ju roof ibrahima waaw kay da bu fekkoon ne bay zëbtalee ibrahima a rabbu kon bay zëbtalee a rabbu ibrahima la ñuy wax waaye nag comme alsaxir añ ca te alsaxir jaa ngi dellu si ci ibrahima te demir abadan abadan du derrière borom looloo tax yàllaay nett bi waskur nettalil ma yow Moustapha nettalil gaa yi lan isëptulee ba nga xamee ne santeef na service ku santaane service bi ku ñu ko sant ibrahima ku ko ko santoon rabbuhu boroma fàttalikul neel gaa yi maa ngi leen di fàttali keroog ba ma sante ibrahima service ba doxale sama digganteeg moom kiilaay yënguwuma ba mu yëg ne maa ngi fi xadirmikuwuma ba mu dégg ci feeñuwuma ko ba ma gis ko ma di ko xool ak service ba di ko xool ak service ba fa atamahun na mu sottal leen na ma ko bëgg maam Ibrahima rii tëgg waay yàllaay wax kat xam nga lu ma ko wax ba mu ko sottalee dama ko nii nii jaayiluka linnaasi imaama liggéey bu rafet bii nga liggéeyal ma tey ma def la ngay supérieur ci kanami mbindi bi Ibrahima nag poroxlu ne ko ba min suriyati booleel ma ca ku ma jur yàlla ne ka du noonu kat jabar laa yor indi ko fi yaa ma nattu wujj ma ko génneelu ma génnee ko ci sa dogal mu yor ndoom soo xam ne mënagul seen yóbbal jeex na ba ko fa maam Ibrahima bàyyee ci gàttal rek ci gàttal joxumaa jóg daf ko ne sama sama borom kër fii nga may bàyyi Ibrahima gestuwu ko jant baa ngee lan nga di xonq doom jaa ngee wereere di jooy sa lir yi di sab njanaw yu jooy mu ne ko fii nga may bàyyi Ibrahima tànqam lu ko mu ne ko sama jëkkër fii nga may bàyyi Ibrahima tànqam lu ko mu fexe nag ba wax Ibrahima lu tax Ibrahima ñeme mu ne ko sa borom la ko sant Ibrahima ne wël bi na ko waawaaw mu ne kon de doy na ma wéttal demal mu continue ñaan nag ne yàlla warsuqhum min asamaraati man amana dëkk la dara du fi ñor waaye maa ngi laa ñaan luy ñor lu ne na fi ñu te yàlla nga wërsëgal ñi ko dëkke te gëm ñi ko dëkke te gëm xam nga lu tax mu wax loolu lañ ko noonu laa yenaalu wax bi zalimin ñi ko dëkke te gëm yàlla na ko ak ko gëmuli gis nga njóoy loo tëj waaw ak ku gëmul it wa man kafara itam ci laa koy boole ma ne boo ragalee sa borom gëm sa yonent wekk say wayjur sopp sa sëriñ bëgg sa njaboot déggal sa gouvernement rus say dëkkandoo ormal lu yàlla bind coonaa dina ko laax du la laal billaahi alquran dégg nga ni mu waxe yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha yaa ayyuha alladina amanu bi mox bi insi ittaqullaha wa amanu bi muhammad yaa ayyuha alladina amanu bi insi ittaqullaha wa amanu bi muhammad kon yuutikum kiflayni min rahmat ragal leen ma te gëm Moustapha taqwa nag piréem ci arab mënunu ko firi nun olof ndax piir piir piir piir ragal taqwa ah moo boobu ci arab mooy firi défendre sa loxo jóg ma fel ko sa kurpeñ jóg ma bëma ko nga xàcc yet ma waaf yàlla nag di dëkkee wax ne fexe leen ba défendre du may yàlla ba du agsi noo koy défendre rek du doon yi xel de moo la dàq daw du doon waaf yet bi dina dem ba suuf juróom-ñaar du doon tëb mu ngi ci aras di la xaar noo koy défendre rek bàyyi lu mu teree def lu mu santaan ah loolu rek la ci musa daana wax ne daana wax ne jël yëfi jàmbur te neexul borom ñaar rek koy tax ñu ne bara ban ma ne nax ko mbaa siif ko ku mën a loolu yàlla dafa yeewoo yeewoo yeewu ba kenn mënu ko nax moom yahlamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min abdil warid kenn mënu ko nax dafa bari doole nag bu war xaayiru fawqal ibaad ba kenn mënu koo siif waaw boo bëggee ci yëfam nooy def doo def ni mu wax soo defee yooyu juróom ñett sunu borom tabaraka wa taala mën na la musal coonay àddina tey ak ëllëg doo ci jaar te yal na ko yàlla yërëm yërëm jullit yëpp sunu papa bu ñëw aadama loo mës na noo di waxtaan mu di ma wax ngor ak lislaam mu ne ma daal laaj yi mënumaa jàng de baal leen ma waaye dama jàpp ngor def ko téerab gàllaaj fab lislaam def kuude gi ca kaw dama jàpp ngor def ko téerab gàllaaj bi ñu bind bi sëriñ bi bind fab nag lislaam def muy kuude ga kuude ga ñu ko ëw ca kaw pour mu di ko défendre ci gaaw a tooy gaaw a yàqu rek la nag moom loolu la ciy jëriñ am déet gaaw a tooy bañ a gaaw a tooy bañ a gaaw a yàqu ngor daal dafa wëlooree wëlooree wëlooree ba bi ko yàlla roofee ci ki mu ko roof mu utal ko nag der bu dëgër ak caas bu dëgër ñabale ko ko takkal ko ko muy lislaam ndax mu mën a ñoom moo fi jëkk lislaam bi am déet par tafsir moo ko fi jëkk xam nga rasulullahi julli leen ci moom wax nañu ne baayam bi ko jur fanam guddul waaye ki jur pàppaam fanam gudd na ki jur pàppaam ñu ngi koy wax seybatal am bi dinañ koy wax it abdul mutalib bi maami nabi bu góor saybatal amdi la tudd waaye turam wi mujjee siiw ba rey saybatal amdi mooy abdul mutalabi sabab bi tur woowu ba dàq wale lëf la ki ko jur moom abdul mutalib xaasim la tudd xaasim góor gu ñemoon voyagé la da daan voyagé jóge na màkk de medinatul munawara fekk fa benn marché yi ñuy def marché Kër Samba Kane marché Toubatul noonu la arab yi defe ukaasa yi suuqa yi day bari waaye benn daaw cëpp bu yasriba ak bu ukaasa mu seetaani ko yem ca fa ca jaayante ba jëndante ba jëmm ju mu gis ju mu bëgg ba mu demee mu ne ko newul ci loxo mu ne déedéet mu feeñalal ko mbëgg borom bi dogal mbir ma sotti ñu jox ko ko moom ak moom fukki fan ak juróom moom ak moom fukki fan ak juróom aw ay feeñ ca dëkk ba mu ne gor fu mu jël jabar lu ko fa fekk na gore ci baatu ngor rek islaam a ngi condamné ku ne ci dëkk ba peste fekk la ci accès bu sox ci yow waaye fekk na la ci dëkk bi yoon na nag bu ko génn bi bu ko dégg fenn nag fekk ko donte sa njaboot a fa ne waaye fu mu la fekkit bu ko fa ba mu xeex ci xeex ba dee ca soxna si ëmb kii mu ëmb xam nga kan la moo war a jur Abdoulaye mi war a jur Rasulullah gisu ko mu dee xale ba yàgg ci biiru ndeyam lool ba ñu tiit mu juddu judduwaale lu kenn daawul judduwaale ci ñam ko ak mu suuf ci mi ñuy kukk ba ñuy weex tàll mu am sàkkal yàlla yéemu ca nag mu boole wàcce bi jaww boo xam ne dafa mel ni dañ ko diw keroog ba mu juddoo la am tur borom ba jaaw bi lañ ko tuddee keroog say bata la am ba jaaw bu ñu ab pour wéet kookoo jur abdoulaye ñu jur rasulillahi ci ngor laay wax de ba mu toogee ba war a toll ci dal jàng laaj baayam ñu xamal ko ne fu sori la dëkkoon def fi ñëwoon suñ borom moom na ko fi mu yor misère moomu bëgg a xam kër baayam mu ngi Medinatul Munawwara de xam nga ne bi kër maamam li ñibbiwaat bi mu bi mu gàddaay Salma moomu moo waral mu bokk ci néeg ndeyam nekk Makka nekk Medina saybatal am di mi ma lay nettali coono biñ koy biñ ko dal bi ko dal ci Makka yëpp ba mu naan bu ma amoon fukki doom rey kenn ka ñàkk fa néegi ndey tax amu fa néegi ndey Medina la fekk baax baax rek ki papa bee ko togg yóbbu bi mu amee fukki at wala juróom-ñeenti at la nekk xale yi ci fu ñuy foye arab ak tubaab ñoo niroo foyin seen poom gune mooy tëb ëtër mbaa yëkkati poids am na ku ñuy wax ku tudd mu xiira wayaati si mag Medinatul Munawwara dëkk mag seen xale yi fo mais mu seen saybata lu mu yëkkati bu ko tëralee moroom yi du ko ànd lu mu tëbit kenn lu mën a am ëtër bi te it suuti ci ëpp ci mu xool ko ba mu yàgg ne ah bu ma bañu woon a fen ne leer gii ma siit bilaay ci bani asim la bokk dal di arrêté giléem gi ne hey xale yi ne gis fi ñu doon fooye ku nekk na ko papa man mu ne déedéet papa man mu ne déedéet ba say batana man mu ne ko yow doom kaay kaay mu dox ak si mu ne ko noo tudd mu ne say batal am bi mu ne kuy sa baay mu ne ko xaw ma ko dañu wax ne dafa teel a dee waaye daal yëg naa ne dëkk bu ñuy wax màkk la dëkk xam naa itam ne mu ngi tudd Haazim Abdu Manaaf a ko jur Xusey jur ko wax naa ko démb yàlla ne na na ngeen xam seen bokk xam gu ngeen ko mën a jokko ndax ñàkk a jokko bokk day tax yàlla duma la te loo xamul doo ko mën moo tax nabi daan wax ne fexe leen ba xam ci seeni bokk lu ngeen ko mën a jokkoo bu ngeen ko xamee bu leen noppi bu ngeen ko xamee xamle leen ka xamle leen ne maag diw ak diw a bokk xam nga lu mu lay jëriñ yow mi ko xam da lay fanqali duma ndax da ngay jokk bokk xam nga ñi ngi ko xamal lu tax pour bu ñu lay jëw ba seen ko noppi am déet bari na pes mu joxe nit ginnaaw te di wax ku mu xamul ni ki ko féete nii lii la ci moom a ko ko yóbbi waaye boo teelee xam ne kii kat ak kii ñoo neeg naa da ngay dal di teel a noppi mu jural la jàmm kon ki xam ne maag diwa bokk xamal kii ne ko kii kat sama doomi nijaay la xam gi mu ko xam moom dina ko jural tiyaaba ndax dina ko dox xam nga mu ko xamal jàmbur ba mun na ko musal ci mpes parce que bu koy wax lu bon bu ko séenee noppi du moom sama baay day say bata la tudd astaghfirullah sama baay ñu ngi koy wax xaasim xaasim abdu manaa fa ko jur xusey jur ko màkkit la ñu wax ne fa la dëkk mu ne ko du mu ne du deñ yow maa xam say bokk doo màkk googu nga wax laa dëkk ne warañ bëgg a dem mu ne ko papa may ma ma laaj la ma nit mu ne ko looy laaj mu ne ko di nga dellu màkk mu ne ko bu sama aaja faju woon du ma fi fanaan tey mu ne ko sama baay bu ñuy wax mutlab mu bokk ak abdu manaaf mi ma jur ndey ak baay xam nga ko mu ne ko ñoo bokk mi ni piñ mu ne ko soo demee nekk gis naa sa doomi fereer ba nee na yaa gaaw a fàtte dénkaane ba sama baay di dee am na lu mu bindoon ñu yónnee ko ko su demee laaxira lu muy wax dellu ci xale yooyu fo góor gi ñibbisi tekki gileemam dem grand place mooy kaaba gi see waxtaanukaay tuuti mutalab ak mu ne ko ma gis la ñu làq ci rukkunu yaman mu ne ko ah bootul gàcce dal la de man day xale bi ma gis géño gu ma bokkoon mu bokk ca bu nekkoon ca ginnaaw jabaru xaafit ma jëli ko waaye jëli sa doomi frère bi waay mu ne ko suturaal ma dinaa ko jëli grand place neexul ci moom dara tuuti la toog ñibbi ñëw rek romb jabar ji dugg ci néeg bi dafaanu di jooy jabar bi ne ko koo jotee ci pénc ma uyiwu ko lu xew uyiwu ko ba jooy ya àggee ba mu fom pour daf ko ne pareel ma yóbbal damaa voyagé te voyagé bi kat sama bakkan xaj na ci defar testament yépp faw daas ay fettam poson ko du dox nag bëccëg bu bëccëgee mu seet fu nëbbu dafa nelaw ba guddi gi xaaj mu ramtal guddi gi ak lëndëm gi noonu la def ba àgg Madinatul Munawwara fekkaat nit xale ya fañ leen fekkoon ñuy fo naka la gisee rek xamee ko doom joo xam ne ki ko jur yéen a bokk ndey bay donte mosu ko gis naka ces ne ko ci gileem gi tegg teg bi ñu foyee ba bëccëg ñu ñibbi ku ne sa yaay jël la jox la añ salma seet seet seet seet gisul say batala mu dem ca xale ya ne leen sama doom fu mu dem ñu ne ko papa bi nuy fo ba min bi jib ba midi jib jëmm ju war gilee mi mbéy gu weex tal sol yére yu weex tal la ko fa fekk togg ko yóbbu mu ree ne wax ngeen dëgg bàyyi bala dal di def dal di sone arab nag dañu am dañu am mot d'ordre bu ñuy sone duñ ko tëgg dañuy dafaa doon dafaa doon dafaa doon toxora ci toxora gi la ñuy mbiibe mbiib goo xam ne ku sant ndooy di nga yëg ne ndooy xewle na te xewle ju jàpp fu mu la fekk nag loo doon def bàyyi ko wala ko sant mbekk naka la toxora toxora gi rek càmm yi wër ko mu ne sama doom raw na xamoon na daan càmm yu toll nii yéen ñuy fag sama doom bëccëg ñu gisee dale gi juróom-ñaar ñu daf leen ci seen ñaareeli fan lañ leen daf dal ne sëy ba talaam bi mu ngi ànd ak baay bi hey góor gi gëstu ñu ne ko bu sa tànk yi werenteeki mu tourné giléem gi jàkkaarloog ñoom ñu weccintey kàddu baat ya ñagas mu cëppeelu foog xale bi wéer cib dënnam wékki fettam yebal ko ñu yebal seen fett fett yi weccente waaye barakatul nuuri rasulillahi bi nga xam ne mooy sowe ku sowe ëllëg tax na genn fett mënu la laal góor gi te fettam gu dem xale bi dina simi nafti ba fab ko yëbaat ko six heures bi muy jib daal ñu désarmé li ñu amoon yépp jeex mu rey ca ñaar ña ca des walbati ko mu togg xale bi continuer xale bi na ko topp sama ñoom nijaay buñ demee beneen renfort dina ñu dab te buñ ñu dabee ñooñu ëpp doole nañ wàcc yoon wi ñu wàcc yoon wi waaye booba léeri ne bi gaa ngi ciy jibi mel ni torse ci àll bi di def fëy fëy fëy mu ne ko xalaat naa ñu dina topp leer gi feeñal na dindi sa kaale gi takk ko sama jëb mu dindi kaale gi takk ko ci jibi waaye téere yi ne nañu leer bu tojee kaan kaala du ma tabax leer bu tojee kaan kaala du ma tawa leer ga boole kaam ma kaala ka di signalé rek mel ni seetu boo téye diggi bëccëg bi gawar gi bëggee gërëm dañ ne ñu nga tourné fekk leen xale bi nag ne ko papa wàcc ma wàcc ma wàcc ma wàcc ma gaaw mu yor ko naka la tànk yi tegu suuf rek mu téen jëg asamaan yëngal ay tuñam asamaan ne jalab jalab jalab formé benn xiin ci sax ñuy kub tiin nijaay yi taag si wuñ ci bay ñoom kenn mënatu la gis sa morom ci bëccëg noo mënatuñoo gisante ay naarigoo rek ngi ngaxal tiim leen ay jaase ngee bocce is jaakum min fawqikum wa min asfala minkum bi izaqati al absar wa balagati al qulub wa ana azir wa tuzunnuuna billahi zununa hunalika ibtuliya al mu'min waa ju ñu dàq na xare te nekk ci ndigal maamam ba mu def ba pël la ba wuree ndeke gawar gi indiwaale nañu yaay jële xàmmee yaay na ko papa sama kër sama yaay ñu yàlla xal yaay ji nijaay yi yàlla xal yaay ji mu dem bu jub baay bi ne ci seen diggante góor ga yàlla xal xale bi mu fekk si yaay ji ñu ne ñoom ñaar ci diggante ñaari gawar yi mu ne ko